waaw mbokk alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñuy wërsëgal ñuy dund la nga xam ne mooy jeexitulu weeru koor rawatina sunu dajab tey bi nga xam ne mi ngi nekk ci bisub aljuma aljuma jooju nga xam ne suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam daanañu ci ñaax ci yokkute ay zikrullah ak i ñaan mu bokk ca waxtu yañ gën a yaakaar ci lu ñuy nangoo ñaan mooy diggante mooy mooy ci gannaaw takkusaan loolu it borom na borom xam-xam yu jiitu bari woon nañu lool gannaaw takkusaan ñuy nekk di wéet di jokkoog seen borom kon loolu ay ngëneel la yàlla xam lan la ci def yàlla na yàlla dëppaliñ ci ñu ngi nekkoon tey suñu daje ak suratul maida juróom-ñeenteelu daje bi nga xam ne moom lañ ci am di saar woo xam ne nii saar lay bu yàlla jagle ci wooñu ci wooñu ci loo xam ne woowuñu ko ci benn saar bu dul moom ñu ngi noonu ñu ngi demoon ba yegg si tey ci ay soixante-dix-sept bi fi suñu borom di wax ni qul ya ahlal kitab la taxulu fi diinikum insha allah bu dee Cheikh Ousmane Farana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم مني قل يا أهل الكتاب نيل أيين نيو تيري بي laa taxlu fi diinikum bu leen jéggi dayu ci seen diini xayral xaqi ci lu ci lu bokkul lu dul dëgg lu dul lay dëgg wala tattabiu ahwaa qawm bu leen topp mukk bànneexu xeet yoo xam ne qad dallu min qablu réeroon nañu lu jiitu wa adallu kasira réeral ñu bari wa dallu an sawa'i sabil daa di réere la nga xam ne moo gën a diggu doomu ciw yoon lu'ina alladina kafaru min bani israil rëbb na ñeweddi woon ca bani israil ala lisaani daawuda wa isa bni maryam ci lammiñu daawuda ak isa alayhim assalaam dalika bi bima asaw lool day mooy lañ nekkoon di ko mooy wa kaanu yactaduun nekkoon it di ko jéggi dayu kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu nekkoon nañ daawuñu terante ci lu bon lañ nekkoon di ko def la bisa ma kaanu yafaluun aka bon ca ñaaw lañ nekkoon di ko jëf tara kasira minhum yatawallawna lazina kafaru da ngay gis lu bari ci ñoom dem di féetewoog ña nga xam ne ay yéeféer lañu la bisa ma qaddamat lahum anfusuhum aka bon la nga xam ne jiital na ko ñeel leen seen loxo ya an saxita allahu alayhim ca mooy yàlla nekk na ko mere ci ñoom wa fi ladabi hum xaalidun ca itamit ca mbugalum yàlla ma la ñuy sax bi faw mbokk suñu yonente alayhi salaam bi muy ñëw fekkoon na ahlul kitaab seen diine ñu indi ca njaxas yu bari suñu borom yàlla sant ko ne ko jottalil ahlul kitaab ne leen bu ñu jéggi dayoo ci seen diine ji nañ yem ca lay dëgg bu ñu topp bànneexu ña leen jiitu woon réeral ñu bari réeral seen bopp réeral yoon wu jub ba mbokk ahlul kitaab boobu bokk na jéggi dayoo ba leen alak mooy ci yàlla tànn ay mbindaafanam ay yonent yoo xam ne da leen a yónni ci ñoom ngiree ñu gindi leen teg leen ci yoonu njub yonent yooyu ñu séddalikoo ci ñoom liñ mujj a jàng démb ñenn ña rey nañu leen ña ca des weddi nañu leen tànn nañ ña leen ca neex teg leen ci palaasu yàlla subhanahu wa taala comme nañ ko defee Uzayru nañ ko defee kii di Isa ibn Maryam ak nañ jële Maryama def ko moom it mu nekk ci place yàlla suñ borom nag ni wax leen ne bu ñu ñu bàyyi loolu waaye mbokk lii bi ko yàlla yi di nettali ci téeréem di ñu ko jàngal loolu mooy yéen jullit ñi fexe leen ba bu leen mel na ñoom loolu rekk la doonte ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne iyaakum walxulu innama ahlaka alladina min qablikum alxulu moytu leen jéggi dayoo ñi fi jiitu dara alagu leen lu dul jéggi dayoo mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka bi mu fi jógee nit ñi dem nañu di ko yëkkati ci ay tagg ba bokk na lu siiw ci nopp yi lool mooy yonent yàlla bi doo nga tax yàlla bind nit ñi bokk loolu jéggi dayoo la alxuraan waxu ko yonent yàlla waxu ko bokk na ci la nga xame ne ni da nga koy dégg yonent bi yàlla ci leeram la jël bind ko jël ci leeram bind mbindaa fan yépp loolu yonent bi alayhi salaam waxu ko bokk na ci jéggi dayoo mooy ci xam-xamu yonent bi ca la yàlla tànqe la nga xam ne moom la bind ci laxwil mahfuuz ca ta ca dogalam yépp nekk ci mi ngi noonu wa min ilmihi ilma allahi wal qalam loolu yàlla waxu ko yonent yàlla waxu ko bokk na ci seen wax yi ñuy wax ba tey wa min juudika dunya wa darratiha yow yonent bi sang mbaax ca la adduna ami ca la ajjana alaxira dañuy yaakaar lépp mi ngi jóge ci sang mbaax mbokk loolu yonent bi waxu ko su ko defee lan la yàlla waxub yonentam qul laa amliku li nafsi darran wala rachada qul law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al min al-khayri wa massaniya su moomulu ma leen lor moomulu ma leen njëriñ man mii de bu doon tane ne am naa benn mbir bu ma moomal sama bopp sama yiw dina bari ca lor du ma dal te yonent bi lor bu ne dal na ko qul innama ana basharun mislukum nee leen man nit laa comme yéen yuuxa ilayya nee leen qul suñu borom bokk ni lim ko wax la in ashrakta la yaxbatanna amaluk bis bu ma bokkaalee say jëf neen wala takkunna ne minal xaasirin loolu mbokk mooy mbir bi waaye boo xoolee jéggi daye biñ jéggi daye ci yeneen ti yàlla bi suñu delloowaatee it am na yeneen mbir yoo xam ne nii daanaka romb na foofu masalan ku ne xam ne ne zikrullah baax na ku ne xam ne ne salaatu ala nabi baax na waaye nag dem ba génne salaatu ala nabi boo xam ne nee nañ kii moom benn rek boo ko ci waxee moo gën juróom benn junni kaamil mbokk li jéggi dayoo la ngi noonu la nga xamee ne mooy nit yi sëriñ soosu nga xam ne ñoo waroon a remplacer yonent yàlla bi di jàngale alxuraan ak sunna ñu war leen a jël def leen ay royukaay di leen topp ñu yëkkati leen créer lu ñuy tudd ay xutba lan mooy xutba xutba ñu ne mooy ki nga xam ne mooy dox diggante jaam yi ak borom bi mboolem jaamu yàlla yi jóge ci jaam yi moo koy récupérer di ko yóbbu ci yàlla mboolem xiiwali yàlla wàcc ci jaam yi ci moom lay jaar doog a wàcc ci jaam yi loolu mbokk ak jéggi dayoo la loolee kon nañu xam ne suñu boroom dafa am wàccuwaay boo xam ne bokk ko kenn suñu yonent yàlla am wàccuwaay bu mu bokkul ak kenn te mooy rasulullah bi am droit jàngale diine gannaaw ba keneen ku dul yonent yàlla bi nañu xam ne suñu moroomum jaam la ñu war a ànd ak moom roy yonent yàlla bi ngir jaamu yàlla imaamu Maaligo Shafiu Buxaari ak sëriñ boo mën a yaakaar sa moroomu jaam la boo war a ànd ak moom ñu roy yonent yàlla bi ngir jaamu yàlla lii mooy la nga xam ne mooy ah alxaq bi suñu borom naan xëyr alxaq mooy bu ñu wax lu dul dëgg lay dëgg mbokk mooy lii borom bi delluwaat ci ahlul kitaab mu ne day rëbb nañu bani israil yàgg nga ko dégg mooy képp ko cosaanoo ci yanquba alayhi salaam mooy juif yi ñoom lañu tudde bani israil chrétiens yi topp isa ña ca bëri ci ñoom ay juif lañu bani israil borom bi nee na yonent yàlla daawud day ba ma ko yónnee ci ñoom rëbb na xeet xeet xeet leen lu tax mu rëbb leen mooy mboolem la ko yàlla santoon mu sant leen ko mooy nañ ko ci mi ngi noonu tuuma bu ne tuumaal nañ ko nga xam ngeen am na ci yoo xam ne sunu gàmmokat yi sax dañuy dem ba koy répété ñu ngi noonu daawuda alayhi salaam amoon na quatre-vingt-dix-neuf femmes gannaaw ba mu am benn général d'armée bu yoroon benn soxna alors soxna si rafet lool daawuda xëy suba boole ko armée bu ndaw yónni ko ci dëkk bu bëri doole bañ demee ñu rey ko fa moom ñu mu àndaloon mu dem takk soxna sa mbokk loolu tuuma la boo xam ne ku ko waxoon sa sëriñ nga xeex ak moom loolu ñu bëri atte ba yàlla wax ci suratu saad ñu jël bëgg ko féetale foofu waaye loolu mbokk yonent yi yonent yi def loolu lu nit ordinaire lu def yonent du ko def maasumoon mi ngi noonu gannaaw ba isa ibn mariam ñëw moom it rëbb leen yàlla yónni ko ci bani israil mu ne leen man yonent yàlla la jox na ma téere kaza wa kaza indi ay lay yu leer nañu ñu ne ko doomi njaaloo nga ñu ngi noonu xam nga ne mbokk lii jéggi na dayoo isaa yi rëbb leen borom bi mu ne lu tax mu rëbb leen mooy ñoom ñépp dañoo moyoon ndigali yonent yooyee ca mbokk yonent yàlla du wax lu dul la ko yàlla waxloo ba pare dañoo nekkoon di jéggi dayoo jéggi dayoo boobu mooy alxulu jéggi nañ dayoo ci téereb yàlla ba yàlla wàcce woon ci ñoom seet nañ ko lu leen ca neexul génne nañ ko ca créé nañ seeni xalaat bopp dolli ca tooñ nañ jàmmi yàlla yi noot leen lekk seen alal ci loo xam ne teguñu ko ci dara ca loolu it boo dellusee ci lislaam même chose nga ciy fekk na am jullit ñi du ñu dañoo jël tiirab yàlla bi am yuñ ci yokk ak wàññi waaye li ëpp suñuy njiit moom dañoo jël tiirab yàlla bi sànni fële koo xam ne naan la xëy tiirab yàlla bi xawma ci dara xam naa daal waaw daal moom ne fa yem mi ngi noonu dajale doomu aadama yi di leen tàggat ci lan ci loo xam ne bànneex ci loo xam ne nii jaxasoo góor ak jigéen loolu bu la neexee nga xëy ne indi leen milliard ñu jox la mbokk lii mooy jéggi dayo goo xam ne dañ koy def ca lii alxuraan moom ñu koy nettali bul ne kat lii yàlla day wax ak juif ak chrétien yi déedéet yàlla daf ñu koy nettali ngir bañ ñu dugg ci yonent bi alayhi salaam ba mu ko jàngee ba pare mu ne fi yahudi yeeg nasaraan yi jaar day sama xeet dana mujj dem topp leen ci loolu nee na buñ demoon ba yahudi ak nasaraan yi dem dugg ci paxu mbëtt sama xeet bi ku nekk dana mujj wët paxu mbëtt boo dugg loolee kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi nag daal di ne da ngay gis lu bari ci ñoom dañuy dem di féetewoo ak yéeféer yi wax nañ ne alwala boobu la ca yàlla tere mooy féetewoo ak moom di ko dimbilante ci wàllu diine di ko dimbilante ci wàllu jihaad loolee da ngay gis ne moom la bari ci yahudi ak nasaraan doon def bokkoon na ci loo xam ne nii ñu bari ci xam nañ ko keroog bi waa Makka jógee pour ne dañuy def ghazwatu ahzab pour fay lislaam ca Madina lan moo ko waraloon yahud yi nekk ca Xaybar ñoo dem comploter ak yéefiri Makka ya yónni ay ndaw ci yahud yi nekk ci biir Madina di Bani Qurayza ñoom ñépp ñu comploter pour na nañu fay lislaam te ñoom xam nañ ne ñii ay yéefir lañu jaamu ko te xërëm lañu te muhammad mi mi ngi leen di wax loo xam ne lañu gëm la gëm alaaxira gëm yàlla kenn la gëm kaza wa kaza borom boobu nag nee na aka bon la nga xam ne seeni loxo jiital na ko ca mooy jural na leen merum yàlla subhanahu wa taala ca ci mbugalu yàlla la ñuy sax ba faw ca mbokk mi ngi noonu képp koo xam ne alalu àdduna faggu nga nga cay faggu tax na mu jural la jaral la nga am sa merum borom subhanahu wa taala borom bi nee ne ku mel nii kenn gënu ko perte moo tax bu duggee sawara du fa génn yàlla na yàlla musal ñu ci loolu waaw ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
barakallahu fiikum suñu borom mu ni walaw kaanu yuminuuna billahi wannabi bu doon ñoom day dañoo nekkoon di gëm yàlla di gëm yenente yàlla ba wa ma unzila ilayhi gëmit la ñu wàcce ca yonente yàlla boobee mattaxazuhum awliya duñu dem mukk jàpp yéeféer yi ñu ñuy féetewoo walakinna kasiran minhum fasiq fasiquun waaye la ëpp ci ñoom day dañoo nekkoon di génn akuk topp la tajidanna ashadda annaasi adaawatan lilladina amanu yahud da ngay fekk ña gën a tar ak noonoo ñeel ñi gëm yàlla mooy ñi nga xam ne ay yahud lañu walladina ashraku ak ña nga xam ne dañuy bokkaale wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu da nga fekkit ña gën a jege ak cofeel ñeel ña nga xam ne dañoo gëm alladina qaalu inna nasara ñooñu nga xam ne dañ naan ñun kat ay ndimbal dimbalikat lañu ay ñooy dimbali isa loolu mooy an nasara zalika bi anna minhum xissisin li waral loolu mooy daf ca am ay boromi xam-xam yu mag wa ruhbaanan ak i jaamukati yàlla wa annahum la yastakbiruun te ñoom day duñu nekk di réy réylu mi ngi noonu bokk ci bind bi ñu génn bokkoon na ci mbonuk bani israil li taxoon yonent yàlla daawud rëbb leen yonent yàlla isa rëbb leen suñ borom mu ne kaanu laa yatanaahawna am munkarin faaluuhu daawuñu terente lu bon ca mbokk nañu xam ne suñu borom yàlla bépp société yonent bi alayhi salaam daf ne dañoo mel ne gaal gu nekkoon ca biir géej ña fay def lu bon mooy ñi jóg ne dañuy bëtt gaal gi ña nga xam ne defuñu lu bon bu ñu toogee rek di leen seetaan naan yéen a xam de bëtt leen seen côté waaye suñu côté moom bu leen ko laal buñ bëttee seen côté gaal ga suux ñoom ñëppay suuxandoo lool it yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne ci li Abu Bakar yu Saddiq nettali ma sa taxaw ci minbaru yonent bi alayhi salaam mu ne ay yéen nit ñi bu mu leen war moos aay bi yàlla di wax yaa ayuha alladina amanu alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla iza htadaytum bu mu leen war aay bi yàlla naan ay yéen julit ñi toppatoo leen seen bopp du leen lor képp koo xam ne daa sànku su ngeen jubee maa ngi dégg yenente yàlla bi di wax ni nit ñi de buñ gisee ak mbon ci seen biir kenn jógul naqar lu ko tere ko su mbugal dee ñëw ñoom ñépp la ko yàlla di boole loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk diine lislaam daf laa jox ñetti wàccuwaay heure boo gisee lu bon xoolal sa bopp ndax lu bon lii mën naa koo dindeeg sama loxo soo ko mënee dindeeg sa loxo jógal dindi ko ak sa loxo dindi sa loxo nag day wane ne la nga fay dindi lu bon lay doon soo jàppee ne boo dindee lii mu jur lu gën a bon loolu loolee jarul ngay jóg di ko dindi bu dee ne dem nga ba jàpp ne lii kat mënuma ci dara waaye jàpp nga ne su ma ci waxee wax joojee mën na jëriñ su boobaa islaam ne la waxal ca lu bon la ca it lu bari yàlla mën na ko caa dindee su dee ne nag jàpp nga ne su ma ci waxee it fitne bi gën a yokk ca la la lislaam doog a wax ni kon nar a naqari lool sa xol ca mbokk lépp loo xam ne daa naqari sa biir xol mooy doo ko def doo fekke fu ñu koy defee am déet loolee suñu yeneen dina mooy adaaful iman amma bu mbon tasaaroo ñu deme dem ba kenn tereetu ko de un kenn waxatu ne lii bon la kenn naqarlootu ko loolee mbokk musiba moo ñuy dal ca loolu sax ci mbon day kii loolu ba sañu am gan yu jógee Arabie Saoudite bañ jógee yàgguñu ci dëkk bi ñu fii benn waxtaan bu ñu doon def ñu génn ci jàkk bi rek am benn xale bu jigéen génn ak col goo xam ne mara di taal mu ne ma yaa imaam mais kii gis nga li mu sol mais woo ko nga laayu ko biir ma ne ko yaa bàyyi noonu rek xëy après dañ ci waxtaan yaa ngi dégg mais loolu mbokk da ngay gis ne man jàpp ma sax am na lu ma romb tellement que dëkk ci dëkk boobu mbon boo xam ne bés bu ne mën ngay gis loolu moo tax ba mbon mbokk nit ki war ci xeex kéemtaleel kattanam am maa nag soo demee ba yegg ci lu bon loolu di li xaram yàlla bëggu ko yeneen ci yàlla bëggu ko ay malaaka bëggu ko nga mën a gis ay baay bu taxaw ak doomam bu jigéen ma nga solu mel ni jinnib tubaab xol li xa yaram bay weex tàll lu ko neex def muy jàkkaar la moom xàqataay tàppante nga xam ne mbokk xol yi bu ñu deewul it feebar nañu loolu mbir la boo xam ne mbokk musiba la day jur rëbbam yàlla yal na yàlla dekkalat suñu xol ci lépp luy taxawaayu diine ñu seet lañ ca yàlla tollalee ñu def ci suñu kemtalal kàttan amma bind biñ mu jëjal suñu borom dani ñoom day bu ñu gëmoon yàlla gëmu àllaaxira duñ dem mukk di dimbilib kéeféer duñ dem mukk di dimbilikoo ab kéeféer waaye li waral loolu mooy li ëpp ci ñoom faasiq lañu boo ko faasiq mooy ki génn topp koo xam ne li muy feeñal ne moom la ba mu ci génnee yàgg na ngi mel ne rek ab julit bu ne julit la li lislaam tere yépp ma ngi koy def li lislaam digle yépp ma ngi koy ma ngi koy def ma ngi koy bàyyi kookee dañ naan génn na ñu ngi noonu comme na nga xamee ne nii noonu la janax yi di def bu ñu gasee benn pax fii utal ko benn ñun ba ñuy xale tëj fël lañ ko daan wax daal di ut benn trou boo xam ne fële boo ko dàqee mu génn ji fële loolee mooy ki dugg ci lislaam ca lenn ci njàngaleem lislaam jëfewu ko ñooñu ñooy fasiqun borom bi wëlbatiku daa di ne ay yow yonent bi da nga fekk baaba àddunay tukki ñi gën a bañ jullit ñi mooy yahuud yi ak bokkaalekat yi naam mbokk yahuud ñoom dañoo jàng dañoo xam xam nañ ne lislaam mooy dinay dëgg xam nañ ne jullit ñi la yàlla tànn ci seen kaw looloo tax ñu iñaane leen ñi gën a tar iñaan mu yahuud loolu tax yahuud moo gën a bañ la nga xam ne muy ab jullit te loolu da ngay gis na mooy feeñ ba suñ jamono tey ji lay xew Israël yéen ñiy déglu rajo yépp wax gis ngeen ko reyin yu bon yu ñaaw yoo xam ne dañ koy rey la nga xam ne muy jullit ñi suñu borom mu ne da nga fekk nag ñoo xam ne jege nañu ak cofeel doonte ne cofeel gu mat moom amuñu ko waaye nag jege nañ ko mooy ña nga xam ne dañu ne ñun ay nasaraan lañu Isa ibn Maryam man ba mu ne man ansaari ila Allah qaala alxawaariyuuna nahnu ansaarullah ñoom ñi nga xam ne dañu ay chrétien lañu boo gisee ñooy gën a bëgg ñooy gën a jege mbëggeel ñeel jullit ñi te na am ba suñu jamonoy tey suñu borom nee na da ngay fekk ci ñoom ay borom yu xam-xam mooy seen cardinaux yeeg borom xam-xam yu mag yi ak ruhbaan mooy seen labbe yi nga xam ne dañoo dëddu àdduna doonte ne ruhbaaniye boobu suñu borom nee na ñoo ko sos seen diine yàlla sant leen ko suñu borom mun a ñoom du ñu réy réylu ñàkk réy googu moo tax ba lu ci bari du ñu nekk di noonu ak jullit ñi doonte ne mbokk chrétien yi yàlla di wax safa noonu ak chrétien yu bari ñëw seen gannaaw ndax ñii yàlla di wax ñi ngi koy nar a jàng ci kanam ñàkk a xam moo tax ñu sax ci réer mais buñ demee ba dégg alquran lan mooy seen position loolu yàlla wax nañu ko waaye nag xamal ne mbokk lu ci mën a doon lay jóge ca chrétien ya di tuub dugg ci lislaam année bu nekk ay junni junni la li nga noonu bu ñu la waxoon ñaata mooy tuub ci France ñaata mooy tuub ci États-Unis ci ñoo xam ne ay américain maam ak mamat ay américain lañu ay français de souche ñu bari di tuub dugg ci lislaam kenn xamul lu mu toll waaye am na juif juif dëgg dëgg dugg ci juifam dugg ci lislaam naam loolu danay am mais ay benn benn lay doon da nga loolu ay benn benn lay doon borom boobu nag loolu mu leen tàggee ne lu ñu réy réylu loolu ndekete nangu dëgg bokk na ca ñàkk rëy moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bam wa jàkkaarloog saxaaba yi ne ku am lu toll ne misqala zarra ci rëy day du dugg àjjana benn góorug caamin na ko ah yu mu yàlla yónni man nag damaa bëgg sama yëre di rafet samay daal di rafet de mu ne ko loolu du rëy yàlla dafa taaru bëgg na lu taaru waaye rëy mooy batarul xaq wa xamtu naas rëy mooy doo nangoo dégg-dégg ca it nga xeeb doomu aadama yi lii mooy rëy képp ku deyaali li dugg àjjana loolu it ku ne war ca bàyyi xel xeeb doomu aadama bi ngir cosaanam ak sa cosaan nga jàpp ne yaa ko gën ndax yow cosaan mooy nangam moom cosaanam mooy nangam xeeb ko ngir sa xam-xam xeeb ko ngir sa alal xeeb ko ngir position sociale bi nga am yooyu yépp mbokk du melokaanu jullit gannaaw bi jullit mooy fu mu dégg déggug yàlla bi du rëy rëylu da koy topp loolee mbokk chrétien bi daa bàyyi diineem rëy rëy lu wul dugg ci lislaam waaye yow jullit it yaa ngi judd soixante dix ans yaa ngi ci ay bidaa yoo xam ne yaa ngi ko doon ne woon ca say maam nga dem a dem ba bë bëccëg ñu leeralal la ne la kat nii nga jàppee diine mu jóge say maam day yonent bi alei salatu wasalaam moom nii la daan defe loolee ngal la waay bu la rëy jàpp bàyyil la sa maam yi nekkoon daal di ñëw sax la nga xam ne mooy sunna yonent bi alei salatu wasalaam lu waral loolu yowmal qiyaama kenn du la laaj sa maam boo duggee ci bàmmeel kenn du la laaj sa maam ki ñu lay laaj ba wàccee bàmmeel mooy yonente yàlla bi ki ñuy woo yowmal qiyaama mu nekk ci yow seede ñu xool ndax li ngi liggéey ci kaw suuf dëppoo nag la mu doon wax du sa maam du sa baay waaye mooy yonente yàlla bi kon bis boo demee ba am lu leer ci ne man kat lii ma nekk woon safaanoo nag la yonente yàlla bi doon woote ngal la waaye nee chrétien bee ñàkk réeréelu ba bàyyi diine maamam ñu dugg ci lislaam yow it fexeel bàyyi ci ay biddaa ci dellu ci sunna yàlla na yàlla yombal ko ci ñun
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
barakallahu fii suñu boroom mu ne ñooñu nga xam ne ñooy chrétien yooyu di boroomi xam-xam day wa ida sami'u ma unzila ila rasul heure bu ñu déggee la nga xam ne wàcce nañ ko ca yonenta ba tara ayunahum tafiidu min ad-dam da ngay gis seen bët ya doon loo xam ne luy sotti ci ay rangooñ mimma arafu min alxaq ngiree ca la nga xam ne xamoon nañ ko ci dëgg yaquluuna rabbana amanna su ko defee ñu ne ay yàlla ñun dee gëm nañu faktubna ma ashahidin yàlla nag ñu bind ñu ànd ak ña nga xam ne ñooy seede wa ma lana la nu'minu billah mañoon lu ñu ñeel ba ñuy ñàkk a gëm yàlla wa ma jaana min alxaq ak la nga xam ne dikkal nañu ci dëgg wa natma'u an yudxilana rabbuna te it ñi ngi xemmem mu dugal ñu suñu boroom ma al qawmi salihin ñu ànd ak xeetu nit ñu baax ña fa asaabahum allahu bima qaalu noonu la leen yàlla faye ca lañu wax jannatin tajri min tahtiha al anhar àjjana joo xam ne dana daw ca suufam li di dex ya xaalidina fiha ñu sax foofee ba faw wa dalika jazaa'ul muhsinin ca loolu day mooy payub ñay rafetal wallazina kafaru wa kazzabu bi ayati ayatina ña nga xam ne nag dañoo weddi daa di fenloo suñuy aaye ne da ne dara du ci dëgg ulaika ashaabul jahim ñooñu day ñooy ñooñu sawaras jahim mi ngi noonu mbokkoo suñu boroom mi ngi wax chrétien yi ka tax di wax mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee ñu jàngal leen alquran la ngay gis rek ñi ngi nekk di sotti ay rangoon di jooy ca loolu mbokk bokk na ki ci jëloon drapeau ba mooy ku ñuy tuddee Najashi xam leen ni mbokk àdduna day soppeeku waaye Éthiopie gi am na ay temps empire bu mag la woon boo xam ne dañu ko doon tudd ci àdduna yépp sunu boroom dogal waa makka bi yonent yàlla bi woote sahabatul kiram ñu leen di mbugal mbugal yu tar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant jaafar ibn abi talib mu ànd ak benn mbooloo ci jullit ñi mu ne leen dégg naa day buur bi jiite Éthiopie ñu koy wax Najashi buur bu maandu la kenn du tooñ kenn ci moom dem leen ngeen làq foofu ngeen jaamu yàlla mi ngi noonu ñu dem nekk biir Éthiopie di jaamu yàlla ci jàmm kenn bund xootaalu leen waa Makka loolu naqari leen ñu def benn délégation boo xam ne kaka jiite muy Omar ibnul As radiyallahu ta- taala anhu mujj na dee ci biir lislaam ñëw ñu indi ay cadeau yu bari ci Najashi Najashi ne ma lu dul seeni tànk ñu ne ko dafa am ay ndaw ñu dawee ci ñun ndaw ñoo xam ne nii dofloo lañ suñu yàlla yi weddi nañu lu ne ñu wax ko ca ñoom gis nga sa diine ji nga nekk sax da- diine la duñu weddi Najashi ne garde yi nañ dem jëleli leen ñooñu ñuy wax gaa yi dem indi Jaafar ak ñi mu àndal biñ ñëwee ba dugg ci palais bi jàkkaarloog Najashi gaa yi ne leen sujjóot leen ñu ne deet ñun duñu sujjóotal ku dul yàlla garde yi bëgg leen pamti pamte Najashi ne leen bàyyi leen leen ñu bàyyi leen leen ñu ñëw dox correctement ba taxaw ci kanamu Najashi léegi mu ne leen waaw yéen lan mooy seen mbir Jaafar daal di koy nettali da ko ñun day ay kaw kawul ay ay niti àll lañu woon dañ daan lekk medd ku mu ëpp sa morom doole rey jël alalam di jël suñu doom yi jigéen di suul xamuñu lu dul doole ak kaza wa kaza yàlla génne ci ñun koo xam ne ci ñun lu juddoo ñun ñoo ko xam kenn mësu koo xamee caaxaan mu ne ñu yàlla moo ko yónni mu ñuy digal nañ maandu nañ am yërmande nañ jàppalante gëm leen yàlla ila axiri ñu daal di koy gëm topp ko lii de moo ñuy doxale suñ diggante suñu xeet najaasi na leen waaw ndax kooku li muy wax am ngeen lu ngeen ci wattu jaafar na ko waaw waaw mu ne ko waaw jàngal ma dégg mu daal di koy jàngal suuratu Maryam ñoom ay chrétien la ñu dey mu jàngal ko suuratu Maryam najaasi toog di déglu la ko wër ci labbe yeeg yépp toog di déglu bi jaafar jàngee ba pare najaasi jooy labbe yi ko wër yépp jooy mu daal di najaasi wàcc daal di jël benn bant bu ndaw bu ñuy dugal ci bëñ mais maa ngi leen di seedeel ne wax ji ngeen wax ak li Isa ibn Maryam doon wax différence bi lu toll nii sax bokku ci lu toll nii sax nekku ci daal di wëlbatiku ñoom Omar ibnul As ne leen delloo leen seeni cadeau su ngeen dajale woon adduna ak li ci biiram pour ma jox leen ñii sax dama leen ko jox daal di seede na gëm na yàlla gëm na yenente yàlla najaasi boobu ba mu faatoo yàlla ko xamal yonente bi alayhi salaam ca madina mu xëy suba ne sahaaba yi yàlla day xamal ne ma buur boobu baax di najaasi faatu na ca Éthiopie daal di ànd ak sahaaba yi ñu génn mu taxaw mu jullee ko julli ku fi nekkul loolu mooy cosaan tey bu ñu wax salaatul xaayib jullee néew bu fi nekkul cosaan ba ma nga jóge woon ca najaasi moomu yonent bi jullee woon loolee kon mbokk chrétien yu maandu ya chrétien yu ragal yàlla ya képp ku ci dégg alquran da ngay gis ne da ngay am maandu te dellu gannaaw amma képp ku ko ci dégg te féttérlewul loolee da ngay gis ne ah kenn du ko boole ci ñu yàlla di takk mi ngi noonu benn waay ci kilifa yi ndakaaru yi woote ni jullit la na am chrétien yi am daje bu mag ci stade ba mu dem fa di tagg seen cardinal bi yow day ku la gis xam ne nitu yàlla piir nga tagg ko wax wax lu nekk yàlla mas sama dajale ak moom ak suñu benn waay bu ñuy wax Cheikh Ndiaye expert ñu bari xam nañ ko ya mun na ko waaw man day bokk na lu ma lay laaj aywa daje boobu nga demoon fa la ci stade bi wax fa nangam ak i nangam mun na ko mais yàlla moo nañu la tajidanna aqraba nnaasi mawaddatan lil amanu nasara yàlla ne nasaraan ñëpp ci yéen cofeel mun na ko waaw yeggaleel aaya bi yaa ngi dégg yàlla kay nasaraan yi muy yàlla di wax buñ ngeen jàngalee aaya borom bi da ngay gis dañuy jooy daal di wax wax ji ñu nar a wax léegi am déet ndax mbokk ñii nga xam ne ñooy cardinaux yi nekk Dakar ndax xamuñu ne yàlla wàcc na alquran naam ba da nga ciy gis ñu ñeme yàlla sax ñoo xam ne dañuy taxaw débat yu jullit ñi débatté ci l'islam ñu ciy intervenir di wax naan yàlla wax ñu li ci alquran yàlla waxul li ci alquran ndax kooku moo tax yàllay wax déedéet nañ xool ñi tax yàllay wax suñu borom nee na suñu gisee lii wàcc ci ño yonente bi la ñuy jëkk a def ba la ñuy wax mooy dañuy jooy ca mbokk loolu moo nekkoon mandarga ku ñuy jàngal alquran mooy mu tuur rangooñam amma am na loo xam ne ci seytaane la jóge mbokk jullit heure buñ koy waa mu nekk di yuuxu mbokk loolu jógewul ci yàlla de ci seytaane la jóge te it boo xoolee ñi koy gën a def du ne alxuraan lañ leen di jàngal yeneen ni wax lañ leen di jàngal ñuy yuuxu ba jóg mbëkk miir bi ndax mas ngeen gis ku ñuy jàngal suratul baqara wala kii mu toog rek yuuxu mbëkk miir déedéet foo ko fekk rek wax yi ñeneen ay yeneen i wax la ñuy lañ nekk ci loolu waaye même bu doon alxuraan la mbokk ngeen nekk di yuuxu loolee xëy na sax mi ngi wàññeeku léegi lu bari gënoon na fi bari ci tarawix yi waaye islam gisiwul noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Mas'ud nee na woo na ma bis na ma jàngal ma alquran ma ne ko nu ma koy jàng ci yow la wàcc mu ne waaw dama koy bëgg di dégg ci keneen nee na ma ubbi suratul nisa di jàng ba yegg si ci aay bañ jàngoon fan yee passé naka ngay def bis bu ñu la indee yowmal qiyaama ngir nga seddi nit ñi mu ne yonent bi geestu ne ma xasbuk doy na bi ma yee bi ma geestoo maa ngi gis bët yaa ngi tuur rangoon mbokk loolu mooy islaam bu ñu lay jàngal alquran sa xol yëngu sa der di raf rangoon tuuru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na juróom-ñaar ñi daan leen keral ci arche koo xam ne wéet na ci place xalaat digganteem ak boromam ba tur rangoon loolu mooy rangoon bët yooyu safara du ko laal bépp bët boo xam ne tuur na rangoon ca yàlla kese tax safara du ko laal loolu nag melokaan boobu moom la chrétien yooyu def suñu tuuree rangoon ba pare ñu ne ay yàlla ñun de gëm nañu ca boole ñu ca ña nga xam ne dañuy seede gëm nañu na am ca mooy dugg nañ ci biir lislaam ay yàlla nu ñuy def ba ñun duñu gëm ca la nga xam ne dikkal nañu ci dëgg ca na am mbokk isa ibn maryam bi nga xam ne moom la chrétien yi gëm dafa leen waxoon ni man de dinaa dem waaye yàlla dana yónni ab yeneen sama gannaaw turam mi ngi tudd ahmad joxe ci melokaan yépp ba tey am na benn évangile selon Bernabe nga xam ne boo demee église catholique bi ñoom reconnaître ñu ko ndax ñoom quatre évangile lañ reconnaître mooy Jean Paul Luc ak Matthieu mais selon Bernabe dala ci indi lay yu leer melokaan yu sell ne la yonent yàlla bi nar a ñëw nii lay melokaanoo ñu ne kon ñun Isa day lam ñu waxoon yàlla wërsëgal ñu juróom benn téeméeri at presque yàlla dépp la ñoom ñu fekk yonent boobu loolu xéewal gu rëy la goo xam ne ñun de yàlla gëm nañu yàlla nag ñu boole min shahidin ca mbokk xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yowmal qiyaama ñoom la yàlla indi ñooy seede yonent yi ne seen jottali woon nañ seen xeet li yakuna rasulu aleykum shahidan wa takunu shuhada ala nas yonent yàlla bi bu seede suñu kaw ñun ñooy seede nit ñëpp moo tax ñu ne yàlla yàlla nag ñu boole ak ñuy seede ak ñu dugg ci lislaam gannaaw ba itamit ñu ne ñun day ana lu ñuy tee gëm te ñi ngi mébét yàlla boole ñu ak nit ñu baax ñu te it mbokk jaamu yàlla ngoog kenn du jaamu yàlla ba dogu ne àjjana laa jëm am nga droit nag jaamu yàlla yaakaar na àjjana nga jëm bépp jaamu yàlla beneen bu dul yow ak lu la ay mbiram yiim yiim yiim njortal ne àjjana la jëm waaye amoo droit dogu ci ne àjjana la jëm lu dul ña nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na leen ñu ngi noonu loolu mooy la ci gën a wóor amaa ki ñeen ku dul kooku am nañ droit nag dafa njort ci moom borom boobu ni nii laa leen fayee ca lañ wax bi ma qaalu mbokk kon ngeen gisu wax ni mu amee solo bi ma qaalu ca lañ wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn waay dana wax benn wax ci ngërëmal yàlla moom bàyyiwul xel sax porte wax ji ay màggaayu wax ji bàyyiwu ci xel yàlla wëlbatiku gërëm ko ci ba ila yawmi diin mu tàbbal ko àjjana yal na yàlla boole ñu ca waaye contraire ba it nit dana wax benn wax wax boobee moom jàppul sax ne lii mu wax am na lenn loo xam ne nii lu ci garaaw la yàlla subhanahu wa taala mere ko ci ba ila yawmi diin mbokk boo déggu suñu rajo ak télévision yi xaw ma ñaata téeméeri nga wax yoo xam ne ni bu leen yàlla toppee ca loolee musiba mun ko paase xoola benn waay bi àtt na ñàkk teggin ba ne yowmal qiyaama lu ma fa sëñ diw joxul soxlawuma ko yi ngi noonu benn waay àtt na taxaw en bilal caam man jaamu sëñ diw la yaa ngi dégg ah yàlla ne maa bind samay jaam ngir ñu jaamu ma nga taxaw na déedéet man jaamu sëñ diw la ah yooyu mbokk ay wax la yoo xam ne bu la ci bu leen ci yàlla toppee musiba dal leen looloo tax jullit del contrôler say wax bul jàpp rek ne lii yàgg na fi ñépp ngi koy wax kon fokk ma wax ko yàlla na la sëñ diw fay yàlla na la sëñ diw taxaw yàlla na la nangam nangam yooyu yépp mbokk ay waxi shirk la yoo xam ne jullit du ko répété ndax wax jooju man yow bàyyiwoo ko xel waaye mën na laa jural mbirum yàlla tàmmal sa bopp wax ju rafet da nga koy wax mën nam sax yow bàyyiwoo ci xel waaye yàlla subhanahu wa taala gërëm la ci moo tax suñu borom ne wax di ñu wax day ca laa leen nar a dugale ajjana joo xam ne dexi meew yaa ngay daw dexi lem ya dexi sàngara ya dexi ndox ya ñu sax fa ba faw lii lay faye ñiy rafetal ñan ñooy rafetal mooy ñi rafetal seen digganteeg seen boroom jaamu nañ ko bokkaale wuñ ko def nañ ay ndigalam bàyyi nañ ay tereem waaye rafetal seen digganteeg seeni moroom rafetal xatta jëm ci bàyyi ma yi yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay yàlla bind na rafetal ci lum mën a doon nee na même boo dajeek yéeféer noonu bu yàlla ci toolu jihaad nga dem ba koy rey sax rafetalal ni nga ko rey islam du la may mukk nga tim yéefér buqi bët bi dagg nopp bi kaza la corol baat bi mu daanu jeex na rafetal ni nga koy rey mu ne boo demoon bay ren bi rafetalal ni ngay rende ndax yàlla dafa bind rafetal ci lu mën a doon néegam nag extrémité yooyu la yàllay wax lay yonent bi di wax kii da nga koy rey kii da nga koy rey bi kay mun a rafetalal waxuma nag keneen koo xam ne moom day dund loolee kon mooy melokaanu jullit ah yal na yàlla boole ñu sa ñooñu mi ngi noonu Cheikh Ousmane. ah naam waaw suñu borom nag day wax ne contraire bi ndax xam ngeen alquran mooy masaani lu suñu borom yàlla di baamu da ngay gis ne ñii bu la waxee lii rek da lay wax loo xam ne dafa safaanoog loolu guddi bëccëg kéeféer jullit arjana sawara ila axiri tawxid shirk loolu moo tax ba heure bu waxee melokaanu waa aljanna ak fa mu leen jëme wax we melokaanu sawara ak fa mu leen jëme ñu xam ne àllaaxira ñaari yoon doo nga fa nekk suñu yàlla attee ba pare ñaari yoon doo nga fay nekk ñii yàlla xaat ñu jël yoon ba jëm ajjana yal na yàlla boole ñu ca ñeneen ñi ñoo jëm sawara fariqun fil janna wa fariqun fi sair amul beneen yoon amul beneen wàccuwaay bu am àllaaxira imma mi ngi ajjana wala boo ko xoolee ajjana gisoo ko xamal ne mi ngi sawar mi ngi noonu cheikh islam non
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون jazakallahu xayra suñu borom mu ne yaa ayuha alladina amanu ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm laa tuxarrimu tayibaati ma axalla allahu lakum bu leen nekk di araamal yu teey yi yàlla daganal ci yéen wala taatadu bu leen nekk di jéggi dayoo inna allaha la yuhibbu almu'tadin yàlla bëggul jaamam yi jéggi dayoo wa kulu mimma razaqakum allahu xalaalan tayiba dee leen lekk ci li yàlla wërsëgal leen muy lu dagan ca tey wattaqullah ragal leen yàlla alladi antum bihi muminuun yàlla moom nga xam ne ci moom ngeen gëm laa yuaaxizukum allahu billaxwi fi aymaanikum yàlla du leen jàppee ci loo xam ne ay caaxaan rek la puukare ci ay ngëm walakin yuaaxizukum bi ma aqadtum al ayman waaye dana leen jàppe nag la nga xam ne da ngeen koo fas muy ngëm muy muy aw aw ngiñ fa kafaratuhu la nga xam ne nag moo koy kafaara mooy itaamu ashrati masakin ngeen leel fukki miskin min awsati ma tutimuuna ahlikum ca la gën a digg doomu ci li ngeen di leel seenu njaboot aw kiswatuhum wala miskin yooyu ngeen woddu leen mooy solol leen aw tahriru raqaba wala ngeen goreel jaam faman lam yajid ku amul dara nag fa siyaamu salaasati ayyaam ku mel noonu na woor kon ñetti fan dalika kafaaratu aymaanikum ida xalaftum lii de mooy kafaara ay di daganal ci yéen la nga xam ne mooy seen ngiñ ya heure bu ngeen waatee waxfazu aymaanakum wattu leen seeni ngiñ kazalika yubayinu allahu lakum ayaati nii la yàlla di leeral a ñeen leen ay aayaam laallakum tashkuruun ngiree ngeen doon ñuy sant seen borom mi ngi noonu mbokk suñu borom jàng nañu sànq mu ne yow yonent bi nil ahlul kitaab buñ jéggi dayoo naam tey nag yàlla ñu woowal boppam ne ay yéen jullit ñi bu leen daganal bu leen araamal yu tey yi ma daganal ci yéen mbokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñett ci ay saxaabaam ñëw nañu ca yaay Aïcha laaj ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu muy dundee ci biir kër gi yaay Aïcha nettali leen mu mel ni mbir mi ñoom la ñu foogoon gën naa ëpp loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit naturel la woon da doon nekk ki soxnaam di waxtaan ak ñoom di leen jàppale yërëm da daan xottee ko moo koy ñëwal boppam di def lii nit normal di def léegi nag ñoom mel ni mbir mi lañ koo xeeb boobu ñu ne ah déet ñun kat bokkuñu ak moom moom yàlla baal na ko mboo li muy bakkaaram ci loolu am ci ñoom ñu ne man day am na daal lu may dog sama diggante ak sama borom dootuma nelawati guddi danaa fanaane naafila ba baa mi daje sama borom am keneen koo xam ne dane man day bis na ki tey danaa dëkke koor dootuma lekk bëccëg ba ma daje sama borom am keneen ku ne man day bis na ki tey danaa nekk labbe li labbe yi def mooy danaa dund ay soxna dootuma ànd ak soxna booba may daje sama borom loole ba yonent bi alei salatu salaam ñëwee ñu nettali ko mënoon na leen a woo wax ak ñoom waaye daa dem ca kaw minbar ba jullit ñëpp teew mu ne man day maa ngi dégg ci yéen ñuy wax nangam nangam nangam waaye man mii day di yonente bi yàlla bi maa ngi leen di seedeel ne maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla waaye damay nelaw guddi di jóg di naafila guddi damay woor bëccëg léeg-léeg bëccëg dama koy dog te it samay soxna damay ànd ak ñoom képp ku dem ba xeeb sama sunna nag bokkatoo ci man ca loolu mbokk moo tax suñu borom subhanahu wa taala ne du dagan ci jullit muy araamal ci moom lu yàlla subhanahu wa taala daganal mi ngi noonu dëddu àdduna kenn du ko defee araamal ci yow la yàlla daganal comme naka chrétiens yi di wal defee du ñoom duñ jege jigéen du ñu am al am alal du ñu am nangam loolu mi ngi noonu mbir la yoo xam ne ni amul ci lislaam borom bi mu ne bu leen jéggi dayoo ca jàng nañ ca kaw mu ne bëggul ñu jéggi dayoo moo tax borom bi mu ne lekk leen ci li ma leen wërsëgal mbokk xam leen ne lu ñëw ci kaw suuf te loolu suñ caam yi daal ci d'accord lu gis ci kaw suuf muy lu neex rek jullite tax yàlla def ko fi jullite tax yàlla indil ñu banaan ak pom ak orange suñ caam yeggaleen mi ngi noonu kenn mënu koo yeggale kenn mënul yeggale xiiwal yàlla def in taudu nicmatallahi la tuxsuha suñu borom lan la wax hiya lillazina amanu fi lxayati dunia xaalisatan yowma alqiyama nee na adduna bi jullit ñee taxoon ma créé ko donte ne ne yéeféer yi xaaraan nañu leen ba ëppale leen ci amma biir àjjana nag kenn du leen xaaraan ñu ngi noonu biir àjjana moom kenn du leen xaaraan xaalisatan yowma alqiyama looloo tax yow jullit da ngay naan meew sant yàlla lekk lem sant yàlla am nga ginaar suñ caam dóoral sant yàlla dem nga sa loo mën a nekk santal yàlla yonent bi alei satu salaam nee na ki xéewlu ci xéewlu yàlla gi sant yàlla moo ki woor ba ngoon muñ ñoo yem pay ca yàlla gis ngeen jeex na su ko defee lekk leen ci tey yi nga xam ne wërsëgal naa leen ko borom boobu subhanahu wa taala nag ne xalaalan tayiba mbokk lekk ñaar la li ngay lekk day dagane lekk kon baam xoox bokku caag ay derataag ay méeg dëgg yooyu waaye it mu doon loo xam ne teey na ci yow ay bul na rek yàlla mango yi ñun ñëpp ñun ñëpp la ko yàlla defal rom fulfuta muy jaay ay mangoom fee nga jël ay ñaari mango dugal sa poche yóbbu déedéet fokk nag mu doon lu teey yoon bu bi nga ko jaare bu am ko doon loo xam ne nii lu dagal la mi ngi noonu kon xalaalan tayiba suñu borom nag mu ne wattaqullah ragal leen yàlla ca mbokk ragal yàlla du créer jaamu yàlla ragal yàlla mooy jëfe ndigalam bàyyi ay tere li rek mooy ragal yàlla jëfeel ndigal yi bàyyi tere yi yàlla moom nga xam ne moom ngeen gëm léegi nag lim amee ci langue yépp noonu la amee woon jamono yonente bi alayhi salaam ay nit bu ñu wax naan billaay nangam bil ay wallaay nangam fekk yow jubluwoo ci waat suñu borom nee na lépp luy laxul yamin loolu yàlla du leen ko toppee ca bokk na ci loolu ci borom xam-xam yi di wax it waa ji waat ci yàlla jàpp ne li mu wax am na fekk ne dafa juum loolu tamit yàlla du ko ko toppee maadaama yaqinam mooy li muy waat dëgg la yàlla du ko toppee loolu yàlla du ko toppee ci lëxuy boobu waaye li leen yàlla di toppee mooy li ngeen fas waat ko waa ji daa di waat ne dinaa def nangam waat ne dinaa bàyyi nangam mbokk loolu moom bu bu amee da nga war a jël waat googee nga sàmm ko naka la jullit di waate mooy mbokk jullit buy waat du waat lu dul ci yàlla ngi noonu jullit du waat lu dul ci yàlla subhanahu wa taala ku mel ne Abdullah ibnu Omar nee na man day ma waat ci yàlla fekk damay fen moo ma gënal ci waat ci leneen lu dul yàlla ki waat ci yàlla fekk day fen def na kabair bakkaar bu rëy dañ koy tuddee la la nga xam ne yeminul xamuus bu mën a tàbbal nit ki sawar naam waaye kii waat ci leneen lu yàlla moom day bokkaale mais malheureusement société yi ñuy dund tey jàpp nañ ne kuy waat te waatoo ci sëñ diw yow waatuloo ñu ngi noonu dañuy jàpp ne da ngay caaxaan am na koo xam ne boo koy waat tànk néewoo ko barka cheikh diw wala barka suñ diw jamais mënu laa gëmal mbokk nag loolu musiba la borom bi subhanahu wa taala nee na waat yooyu ngeen di waat su boobaa su ngeen bëggee kafaara waat gi kafaara mooy lan man kat ne woon naa diw mi day këram dootuma fa tegati tànkam billahi kër diw dootuma fa teg sama tànk yàlla dogal nga dem ba rëccu wala ay nit ñëw wax ak yow ba wax la li nga def jaaduwul su boobaa soo fa bëggee demaat da ngay kafaar wa- waat ci yàlla ne billaay diw day dinaa ko def nangam wala dinaa ko jox nangam nga dem ba mujj nga gis ne loolu nga ne woon da nga ko def kat bañ koo def moo gën yonent bi alayhi salaam ne kafaara naka la ñuy kafaara suñu borom ni da ngay jël fukki miskin ku nekk nga jox ko la nga xam ne moom ngay jox sa waa kër li nga noonu bu dee ndakaaroo la chaque ni ceeb la ñuy lekk kon da ngay jël fukki miskin ku nekk nga jox ko loo xam ne dana ko suur ca mooy à peu près mudd mooy boo jëloon fukki miskin ku la nga jox ko liibarub ceeb loolee da ngay gis ne dana doy ci kafaara suñu borom mu ne wala ngeen waddu leen waddu googu am na ci borom xam-xam yu ne fokk nga jox ko lu mu mën a suturloo ba julli luy muur jumba xam ak óomam donte ne am na ñoo xam ne dañ ne yàlla wodd rek la wax boo joxoon kee pantalon jox kee kaala jox kee siletement ala kulli haal ku nekk wodd rek la wax naam wala boog nga goreel jaam te fii moom yàlla dafa jóge ci li gën a woyof jëm ci li gën a jafe mi ngi noonu wala ngeen goreel jaam su dee ñetti yi nag mënoo ci dara su boobaa nga war ñetti fan ku amul lu mu jox fukki miskiin su boobaa day woor ñetti fan doog a mën a def lam ne woon duma ko def muy kafaara boobee borom boobu nag subhanahu wa taala ni ngalawaay li mooy kafaara seeni ngiñ heure bu ngeen giñee waaye wattu leen seeni ngiñ wattu leen seeni ngiñ bokk na ci mooy jullit bul def ah cere ji saful laalo rek nga giñ jullit bu demee bay waaw bay bay nekk di waat dafay waat parce que ki muy waxal su waxee du ko gëm mu waat ci yàlla ngir mu gëm ko kon wattu leen seeni ngiñ bul fu mu def ngeen géej muy benn waxfazu aymanakum li nga waat ne dinaa ko def ngal la waay loolee def ko allahuma lu dul nga dem ba yëg ne ñàkk koo def moo gën def gi waaye tant que xam nga ne def gi lu lu baax la ca waat nga ko ci yàlla ihfazu aymanakum fexe leen ba ah matal loolee nga xam ne mooy seen ngiñ yooyu nga xam ne giñ ngeen ko te bokk na ci suñu borom di wax naan kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun julit nga wax dara defoo ko rek merum yàlla la amaa na nga indi turu yàlla waate dinaa ko def ba pare defoo ko loolu nag muy gën a garaaw kon wahfazu aymanakum wattu leen la nga xam ne mooy seen ngiñ borom bi nag mu ne nii laa leen di leere la samay aaya ngir ngeen bokk ci ñuy sant naam bokk ñu ngi sant yàlla bu doon tere suñu borom def ni loo xis ba waat ne duma ko def day xaram ci yow mutlaqan ba faw kon musiba am waaye suñu borom mu ne déedéet boo kafaare rek mën nga ko def loo xis ba waat ne dinaa ko def boo ko deful day nekk lu xaram ci yow ba faw suñu borom ne déedéet boo kafaara rek bu la neexee bu ko def moo tax mu ne nii laa leen di leerale ngiree ngeen bokk ci ñi sant yal na yàlla boo la ñu ñu koy sant nam bëgg ñu sante ko ko mu nangul ñu àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waajibuy laat mu ne moom day dafa waat ne dana def nangam waaye wax ne insha allah na am mbokk julit yonent bi alayhi salaam daana ca génne loolu nee na ki nga xam ne bi ngay waat da nga ne insha allah loolee boo ko defulit du jar kafaara loolee boo ko defulit du jar kafaara mi ngi noonu wallahu alam naam bismillah naam imam benn dafa am benn suuf bu ñu suuf ci kaw tamit am day taa ci tali bi waaw parce que dafay benn suuf wa ala kulli xaal la shakka ne li ñu wax daal julit moom suñu borom dane wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen sànni seen bopp ci lu leen di alal su dee ne moom xëy na jàpp ne ku néew doole la yoon bi ay xat ñi ngi fi su boobaa dañuy gis ne su amee feneen dañ naan ko teggil foofu amaa nag su amul feneen ca moom xëy na la muy jublu jàpp ñu ne loolee munta ñàkk duñu wax ne bu fa jaaree dafay am bakkaar bu koy te buy dal ci kawam donte ne nag bu ko lor dalee it da ngay gis ni du mën a yeddi keneen ku dul boppam almuhim daal jullit yonente bi alayhi salaatu wasalaam suñu borom bi mu ne xuusu xisrakum jël leen seen matukaay lépp loo xam ne nii jàpp nga ni lii su ma ko defee mu lor ma doon na ngànt ba nga xamee ni képp koo xam ne tey jii day doon dem jë jëm ca jàkka ja te mu wóor ko ne ne su ma demee ak lor day nekk suma digganteeg jàkka ji loolu ngànt la doomu aadama bi jullee këram loolee da ngay gis ne ngànt yi borom xam-xam yi di wax bokk na ci koo xam ne lor bu ñuy wóor dox na digganteem ak jàkka ji su boobaa loolu ngànt la mu jullee këram sax wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw ala kulli xaal xërëm lépp loo xam ne doomu aadama dafa jàpp ne man kat lii maa ngi koy defal mbindaa fanu yàlla nit la jinne la xërëm la ak lu mën a doon ñaar yooyu yëpp a yem yooyu yëpp a yem mi ngi noonu mooy jaamu yàlla kenn du ko defal ku dul yàlla yéefir yi màkk yi nag dañ doon wax ñun ñii ñu ngi leen di sujuutal di leen rendil di leen woo bu ñu jàqee pourquoi ngeen ñi def lii ñu ne ñun xam nañ duñ yàlla mais dañuy jegeel yàlla na am lu bari ci doomu aadama it noonu la mooy la yàlla jagoo woon te it lu bari suñu sëriñ soosu loolu lañ leen doon jàngal ñoom dañoo fàtte loolu la yàlla jagoo woon ñu yemale ko ci ñoom su ko defee kenn ci sunu mag ñi daana ko wax mas na ko wax ci benn waxtaan am benn soxna soo xam ne nii mu ne ma daal kii waxam ji daf ma daf maa jaaxal mu Cheikh Souleymane Gueye mu ne yàlla bokkaale koog yonent ak bokkaale koog xaj ñoo yem yaa ngi dégg mu ne nag mu ñu yemale xaj ak yonent waaye c'est la même chose kii jaamu yonent ak kii jaamu xaj ñoo yem ca yàlla ndax yàlla bëggul ñu koy bokkaale dara dara dara dara loolu kon moom la ñuy bàyyi xel wallahu subhanahu wa taala alam naam Cheikh subhanahu maanaam ci nit bu la invité doom ndax maanaam day sàtt ndogu bi yool bi mi ngi ci nga dogee ko avant ci wala man nga dog ko ca julli timis boo demal reer ko ndax ak yool bi ba tey même chose ala kulli xaal yonent bi alayhi salaam dane kuy dogal aji woor ndog ndog ki woor ba ngoon ku ne xam ni ndogam mooy lépp la muy lekk loolu yi day dugg ci ndog li en suñ temps mi ngi commencé tàndarma ndox ak lan ak lan ak lan mi ngi noonu kon waa ji lee yéene woon daf laa bëgg a invité ndogu ndogul mu ñëw tàndarma ya ngay lekk ci yoon pour dog loolee yàq lu ko reer ba mu lay jox dara ndax ku ne xam ne ni tàndarmay kese kese mënul ndogal nit nit day fekk nag ya yaatug yàlla yaatug yërmande yàlla dana tax ba ki la mayoon xaru tàndarma sax am na yool boobee ca benn yool suñu borom dana ko boole junni nit te ji junni nit ñu àndoon def benn jaamu yàlla yool ba ci juddoo ñoom ñëpp ñoo koy bokk loolu junni nit bu ñu àndoon rey benn bakkan bakkaaru rey bakkan ma ñoom ñëpp ñoo koy bokk loolee kon képp ko woor lépp loo xam ne jox nga ko ko lekk la naan la tàndarma la jus la lu mu mën a doon rek dana dugg ci aaya bi su ci ci xadis bi yonente bi alei salatu wasalaam wax kii dogal aji woor mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah
ñi ñoo ci sotti yaasin mooy mu xolul yooyu ñoom ndax ay yent lañ wala ñuy baax suratu yaasin ay yonent lañu ay yonent lañu yàlla mu ne ay yonent lañu arsalna ilayhim isnayni wa azzazna bi saalisin gannaaw ba suñu borom yónni keneen ku naan ittabiul mursalin kon ñetti yonent lañu mais gis ngeen seen xeet ba fan jaar ak ñoom ñu ngi noonu wallahu aalam naam bismillah ah mbokk bi waaw aleykum salaam loolu laaj na nag chrétien bi nga xam ne ci ay parents mooy mooy naan ay parents lañ koy bu ñëwee dañ lay rey nga dee ndax kooku bu ñëwee ci yow du wax du bëgg a jàng alquran ndax islam may na la nga jàngal alquran
chrétien bi ay parents lañ la koy bis boo fi ba daañ la rey léegi moom mu ñëw ne day jàngal quran ku mel noonu lañ koy jàngal ci alquran mooy da nga koy firil alquran da nga koy firil alquran su dee jàpp nga ne itamit ne moom ci boppam loolee dafa mën naa tuub di nëbb ak tuubam loolee da nga koy laayi biir mu tuub même buy nëbb ak tuubam su boobaa wareef la nga jàngal ko saar yi muy jullee pour wañee daal ne képp ku ay paaraam ne boo tuubee ñu rey la tuubal ci nëbb sa tuub ba yonent bi doog a woote ca Makka ak a bari ñoo xam ne ni tuuboon nañ nëbb seenu tuub ba ba yàlla di leen ma xecc li gis ngeen awn firawna ba Muusa ñëwee woote suñu borom mu ne qaala rajulun min ali firawna yaktumu imaanahu am na kenn ci cadre yi waral firawna bi Moussa woote rek la ko gëm mel ni da ko nëbb loolee kon dañ koy wax ca loolu dañ koy yàgg a gis ñoo xam ne dañ naan leen booy tuub benn xale bu jigéen ñëw na ci man di wax koo xamee ne nii daal dafa chrétien la bëggoon na ma takk kaza wa kaza biñ demee ba dara sottil pour mariage bi moom day tuub mu ñëw nag mu ne parents yi nee nañ ko bis boo tuubee daan dem ci bois sacré yi daan la rey looloo ko delloo gannaaw waaye dañ naan ko tuubal te nga nëbb sa tuub da dem ci kanam mu jullit di mu seede la ilaha illa muhammad rasulullah nëbb diineem kemtalal kattanam comme gëmagul doo ko mën a convaincre ci yu bëri waaye bu gëmoon yàlla dëgg-dëgg gëm e waaye ak neexoon mu mu mu dugg ci lislaam ñu rey ko xanaa du àjjana la jëm loolee kon amul benn mushkila waaye nag comme moom duggagul ci lislaam day ragal yu bëri ku mel noonu daal dañ koy laaye biir demal ci jullit ñi nga tuub seedeel leen ne laa ilaha muhammad rasulullah léegi da nga nëbb sa diini ba baa nga koy mën a pratiquer mi ngi noonu waaw mbokk bi doon yëkkati ñu mujjee ci moom naam bismillah li ma doon laaj mooy nga xam ne ci julli bi dafa julli ci ginnaaw bi moom ba ba jullee moom ci ginnaaw bi léegi est-ce que ci julli bi am na droit de def beneen jaamu yàlla ci moom ba def
koo xam ne julli na ci ginnaaw bi moom waaw ah kay waaw ba def chafa ak witre ku mel noonu li nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi di wax mooy bu mu def beneen witre keneen ti bi alayhi salatu wasalaam dane bu ñu def ñaari witre lam ne nañ def suñu mujjeelu julli witre loolee da ngay gis ci cadre ngëneel la ko jumhurul ulama dugal waaye dugaluñ ko ci lekki xis ba witre ba ba fajar di jot amatul droit julli benn julli déedéet moo di ne daal la gën na witre ba mujj soo demee ba am beneen naafila bu la bettit ak na doon loo coobarewu la wala tahiyatul masjid la wala lu mu mën a doon mën nga koo julli mais witre bi moom doo doon la nga xam ne ni moom ngay baamuwaat mi ngi noonu mbokk jullit wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain